al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin أيها الإخوة المؤمنون نواصل حديثنا عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي يقول فيها إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والجزء الذي نتناوله اليوم يتعلق بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التدابر وهو أن يقاطع كل كل صاحبه ويعرض عنه فلا يكلمه أو لا يتعامل معه وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التدابر في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث وبين أنه يحرم من يتورط فيه من رحمة الله ومغفرته فقال صلى الله عليه وآله وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam tukki mbokk yi dañuy wéyal rek waxtaan wi nu tàmbali woon ci ndénkaan lu am solo li nu bi dénkoon sallallahu alayhi wa sallam te ndénkaan loolu mu doon ci moytuloo njortu lu ñaaw di ci moytuloo yeddoonte waaye di li ñuutu di lu ñuutu mbirum nit ñi di lu ci moytuloo itam naxante ci jënd ak jaay di ci moytuloo iñaanante dinu ci moytuloo bañante dinu ci moytuloo dëddoonte wonante ginnaaw tey nag foofu lañu toll te mooy moytuloo gi mu nuy moytuloo dëddoonte ak wonante ginnaaw te li ñuy wax rek meroo meroo dëddoonte wonante ginnaaw dogoo mooy ñaar ñoo xam ne ku ci ne dafa dog moroom ja du wax ak moom walla du jëflante ak moom loolu nag yonente bi ni mu ko teree ci xadis bii noonu la ko teree ci yeneen xadis yu bari wone na ne it dëddoo dëddoonte ak nit ku dëddoonte ak mbokkum jullitam bu dogoo ak mbokkum jullitam bu meroo ak mbokkum jullitam loola mën na koo xañ yërmande yàlla mën na koo xañ jéggalub yàlla ndax dafa wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bisub altine ak bisub alxames dañuy ubbi bunti àjjana yi bu ko defee yàlla jéggal bépp jaam bu bokkaalewut ak moom lenn képp koo xam ne jaamub yàlla la te bokkaalewut ak moom lenn rek yàlla jéggal ko ba mu des ba des ñaar ñu dëddoonte ñaar ñu bañante mu ne ñooñu moom bu ñu agsee ci ñoom yàlla danaan ñii nag bàyyi leen bañ juboo bàyyi leen bañ juboo mooy fii ak juboowuñ rek duñ bokk ci ñooñu ñuy jéggal ci bis yi dëgg la bokk yi nit mën naa jëflanteeg nit mu jëflanteeg moom anam goo xam ne jaaduwut yellut bu boobaa itam mën na koo naqari loolu lu jaadu la lu dëppoo ak ni yàlla binde nit la kuñ jëme jëflante bu jaaduwul bu rafetul bu jekkul man na ko naqarit waaye nag bu bëggee bokk ci ñi gën bu bëggee bokk ci gën day bañ a topp rekk meram day bañ topp meram bañ a delloo jëflante bu rafetul biñ ko biñ ko jëme ndax yàlla dafa wax ne jëflante bu rafet ak bu rafetul yemuñ mooy kon yow de fexe bay def bi rafet bu ñu la jëmee bu rafetul itam bu ko delloo mu ne ku la jëmee jëf jëflante bu rafetul it yow na nga ko delloo bu rafet nanga nga rafetal sa digganteeg moom ba mel ne day sa soppe day sa xaritu benn bakkan waaye nag mu wane ne loolu nag doonut lu yomb ñu mën a muñ rek ñoo ko mën a am ñu am cër bu mag rek ñoo ko mën a am yonente bi salaa salaam itam wax ne nit daganul cib jullit muy wan ginnaaw di dëddu di dogo ak mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan waaye lu mu ko mere mere mere bu mu weesu ñetti fan bu mu ko weesu mu wax ne bu fekkee meroo nañ ba buñ dajee kenn ku nekk dumóoyu loolu wërta weesu ñetti fan warta am sax waaye bu amee itam nag bu meesu ñetti fan te nee na ki ci gën ci ñoom ñaar mooy ki njëkk a jeexal loola ka ko njëkk jeexal mooy bu dee dañ daawut nuyoo ka njëkk a nuyu moroom ja kooka moo moo ca gën noo nga ñaan yàlla kon mu aar nu musal nu ci bañante musal nu ci dëddoonte te ak lépp loo xam ne rek lu jaaduwut la lu rafetul la lu jekkut la ci ab jëflante di ko ñaan mu defal ñu àddina ko alaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil na bunt yiw yi soob na ci njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak ak ñu rafet alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa ayuha alixatu almuminuun inna al insana yumkinu an yataarrada li tasarrufin gayri laa'iqin min axiihi fa yakuna fi nafsihi minhu shay wa hada amrun tabiiyun la manasa min lakin man yuridu an yakuna min xiyaari nnaas laa yanjaru wara algadabi wala yuqaabilu almuaamalata alsayiata bi misliha yaqulu allahu taala wala tastawi alxasanatu wala alsayi'a idfa billati hiya axsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa zu xazin azim wa yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yaxillu li rajulin an yaxjura axaahu fawqa thalaati layaal yaltaqiyaani fa yuridu haada wa yuridu haada wa xayruhuma alladi yabda'u bisalaam nasalu llaha an yacsimana min altabaaxudi waltadaabur wa min kulli ma laa yanbagi min almucaamalaat rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina cadaaba annaar rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله